Abdoulaye sama rakk la waaw fii la nekkoon mu ne man man dem ñun ñaar fi nekk fii bul dem tey ñaari naar ñu ñëw ñu ñëw ci fu muy jaay beneen bi mu ne bidon bidon vingt litre bi ñaata nga koy jaay mu ne man maa ngi koy jaay cent cent vingt cent vingt dinar mu ne loolu dafa seer Ablaye nee na ah man de sama jaati gi loolu la ma jo la mu ne ma jaay lool rek mu ne déedéet man du ma wax man du ma wax man man man man nit man daal naa du ma du ma wax eh, nit ki ñuul mu wax rek mu jël fetalam mu rëy. Ah, pour mu am lu muy indiwaat ci kër gi j'espère ko yow gis nga ci kër gi nu mu mel kese moo ko yóbbuwoon pour mu mën a am lu muy parce que amul leneen li nga xamante ne amul métier jàngul français pour mu naan day am lu muy kii amul entreprise aussi bu muy mën a joxe fii nii. Ablaye de nee na moom papa muy sonn yaayam muy sonn daa bëggoon na dindi coono boobu te yaayam gaañu na papam gaañu na moom mu dem mu day defar kër papa. rek mooy cela veut dire te ñafekat la tam aussi laa mën a doon laa mën a wax ñafekat la comme comme sax xamoon naa ni rek ba mu seef kan le mooy yàlla du exemple boobu rek la ko mën a joxe yéen a ngi naqarlu bu baax bu baax instant bi amul fu mu mën yem si àdduna naqaroom amul fu ñu mën tolloo si àdduna waaw métti na ba fu métti na mën a yem si àdduna moom dana dund vi am dana ko Guinée Bissau sax mais musul dundu fi di nga xam ne ngi réclamé sax am na ku muy xeexal fii ba mu koy eh, gaañ Non, non, il est simple. Il est simple. du est te simple. parce que si nous avons fini, nous avons est autorisé gars avons na nous jël fini famille pour nous def ay comme comme comme gars groupe groupe famille Nous proposé sunu famille fini foo mënta nekk fii ci àdduna def naa leen yëpp ñu état bi ñu déggoon ngir ñoom moo ma jox idée boobu noonu sax jëm boppam gaañu na papam daaw la daaw la gaañu seen papa yéen a bokk waaw ñu ñoo bokk benn papa ak yaay ku ku ku jëkki wax ni ñoo ko ak sama yaay ñoo bokk ndek ak ak baay waaw Ablaye sama rakk la ñun ñaari rek ñoo fi nekkoon ci kër moom am na jabar moom amul jabar man rek maa am jabar am ñaari doom waaw benn jabar est-ce que yéen defal ngeen ko euh, dajal ngeen ko fii non non dajalu leen ko defal ngeen ko sarax sarax dafa ko de parce que fii kër gi gis nga lu mu mel fii dara amu fi yow nekkoon nga libi man ñaataat est-ce que Ablaye li mu dund libi yow bi nga demee foofu yow dund nga lu mel noonu déedéet man benn at rek laa laa def foofu fan nga nekkoon ci libi man maa ngi nekkoon Lo euh, loo loo dund Gatrou yow man feeraaye laa defoon foofu. li ma leen mënta wax rek mooy que exemplaire baa ngi nii bu fekkente ni kii nii lépp luñ ci mënta am suñu réew ma fii nii ko jéem a euh, jéem a foraatoo fii nii lu mu la mënta euh, yàlla lu mu la mënta may rek xamal ni loolooy sa wërsëg gaay nga jéem a koo suturale rek ba nga yàlla jël say rek. nguur Sénégal maa ngi koy ñaan mu mu mu jàppale ma fii kër gi waaw mu mu mu mu jàppale xale yi ñu jëm foofu waaw ñoom il faut ñu dem foofu Libye waaw parce que amul benn réew nga xamante ni amul amul amul étranger nguur Sénégal dafa war a waxtaan ak ak ak ak waa Libye ñu bàyyi lu ñu def sinon nit ñi yëpp da da da dañu dañu dañu des foofu waaw parce que am na sénégalais yu bari yu nekk foofu am na yu gambien yu bari yu nekk foofu. ñu dimbale ñu ñaanal ma yàlla. daa kër gi lu mu mel nii loolu moo taxoon booy bi jóg dem ñaan naa nguur gi ndaa loolu mooy yenn ya ñaan naa nguur gi ñu àggale yenn boobu